barhaamu baa waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. yàlla def na sama papa def ma yebaloon Kaolack ma dem ziyaare ji bàyyi euh, ma dem naa Kaolack tudd naa la sama Ibrahima Niass na dem seeti ko waaye mu woo Serigne Cheikh mii xalifa tey neewul neewul yóbbu ko Cheikh xam nga ma leen ko Cheikh dee def ñu woo leen Cheikh Cheikh yóbbu leen ko ci sa doom bàyyi da ànd yàgg moom du ci biir ak biti bi may bi may bëgg a dugg ci ambassade yi yàlla moom rekk xam nu muy defee mbir dama dem Kaolack seeti bàyyi ndax daan ko seeti léeg-léeg euh, su ma yóbboon étage bi féete maa ci njëkk daal bu bees la woon ma toog ba guddi mu woo ma ma boobu julli nañ ba pare ma ñëw fekk mu toog ak suñu bàyyi sëñ Aliou Cissé euh, ma toog mu nuyu ma ne mu daal jóg mu daal jóg solu moom bàyyi daal jóg di jóg mooy ay wër nañ dem xamal ko fu ñu jëm ak sëñ Aliou ak ay Mauritanie yu fa nekkoon taalibe Mauritanie ñu ñëw ñu ubbi jàkka ji te wóor nañu ko ba pare duñ leen jéem ubbi jàkka ji di dugg ci biir jàkka ji ay taalibe yu jógee yi di jàng benn poème boo xam ne moo ko defoon ñu toog di déglu rek mun ma waaw sama xasida bi laa bëggoon nga dégg waaye doo loolu rek. après mu ne sëñ Aliou mu ne ko waaw mu ne ko dañ ñaan suñu doom ji daal jox ay ndog jàngaleen nangam jàngaleen nangam jàngaleen nangam jàngaleen nangam lépp jàng ko mu téye ci bopp tifli ñaan la ma ñaan yu rëy ba ma ca jógee dellu si Dakar fan yooyu la la président Senghor proposé Tu es un jeune très dynamique, très averti. On voudrait que tu ailles travailler dans les ambassades. Allez quoi Premier conseil d'ambassade. Pas Madame Guéda, Madame Guéda, ana bi toog bàyyi fekk ba fa ànd ak Seyda Mariam ndeysaan waaw Bah, baaxoon nag baax macha allah ubbeeku woyof man bu ñu mosaan a gisee pour mu permettre ma ñu waxtaan bu baax dafa may tàpp sama doom yàggoo nga xam nga ñaas ak siisee kol bi waaw yéen a bëgg ceeb ah toog mu waaw na def ma ne ko maa ngi fee ma góorgóorlu rek gis nga bërëb yu nii yéen yéen a fara nekk ambassadeur waaw yéen yéen la war yéen jàng yaru ci daal nag nag waaw dëgg ñu teg ci ñu teg ci deux ans ñu ne ambassadeur <laughs> alors bi ma demee ambassadeur ba toog Jidda encore trois ans ko ambassadeur nga affecté ma Caire bi ma affecté Caire baa ngi ma télégramme yoo félicité ma ne ah mooy télégramme bi. yooyu gisee bu waaw Jidda lépp nekk Arabie Saoudite fa nekk fa Kaaba gi nekk fa la alxuraan wàcc fa la yonent waaye nag politique politique moom arab dëgg-dëgg stratégie mi ngi mi ngi mi ngi keer fii la idée bi dafa li nga liggéey kontaan dañ ci dañ la récompensé góorgóorlu rek doom mosuma dañ di wax góorgóorlu góorgóorlu góorgóorlu ma jàng ci moom lu bari jële ci moom lu bari fa tabarakallah asadu xaaliq alors mu doonoon dëgg dëgg dëgg sama baay aqat di sama sëriñ aqat bëgg ma lool tabarkalla tabarkalla waaw eh, eh, eh. barhamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan